xale bi doxal doxal doxal doxal doxal doxal eh ala ala di wax nag ni euh, émission yegsil nii rek lay demee chaque euh, quinze jours maanaam samedi ba nga xam ni topp dañuy ñëw euh, invité koo xam ni it tambour major la chef percussionniste la maîtriser na bu baax li muy def boobaa dañ koy yaatal ni ko yegsil mu nekk numéro 2 boo xam ni it El Hadj Ñing jógee Géejawaay moom moo ko def muy numéro 2 bi gars yu bari miin ko ci aas yéen ak may seetaan ci télévision Walfadjri nee naa leen ba taay yére dafa bokk ci télévision eh, ki nga xam ni dafay jàpp ci sa solu eh, kooku bëggul nga dof bëggul lu dul rek ñu naw la lool parce que it Sénégal yére daf ci am solo lool ndax day ndax ñu naw la te télévision moo laaj beauté moo laaj magie Et eh, nous avons di ko béggee moom Khadim Seck ndax yamul ci man rek kër gi bari na ci ñu bari ñoo xam ni ci bi liggéeyam daf ni leen man maay assurer solo bi ndax dama bëgg Walfadjri te yàlla tax bu baax a baax a baax a baax nii ma nii ma mel nii yéen koy gis ci bas écran bi Xaadim Seck moo nu ko def moo nu ko defoon ci yegsil ba la ñu euh, génn te am nañ yaakaar ni bi ñu dëgmal incha allah da ciy dugal loxoom moo tax rek ci quelques minutes Xaadim nuyu naa la te bëggee naa la bu baax a baax. Thiamas maa ngi lay fay. di la delloo bëgge bi. maa ngi nuyu tamit waa Sénégal yëpp. di nuyu àdduna bi. ndax Walfadjri àdduna ñoo koy seetaan. tout à fait waaw yow nag Thiamas. yow kenn amul sa fay yaa ngi jàppale waa banlieue bi mhm. di jàppale artistes yi mhm. di jàppale téer di jàppale ñëpp daal waaw xam nga lii ak tailleur ñoo ànd bu wér parce que kii génn télévision ci programme il faut mu lëkkaloo ak tailleur te xam naa ne yombul woon pour nga déplacé wu mais ana ban cofeel nga am ci Walfadjri ba mu jaral la jëmm yeen ngir di leen solal à travers leur émission cofeel gi ma ci am lenn la ndax bu ma juum bi mooy sama ñaareel bi yoon mooy ñëw wal fajiri bien sûr alaaji Kabir Sène sama xarit ba bu baax moo ma jëkk invité fii Kabir seen sama xarit la moom maa ngi koy di ko ziar fa mu nekk xam naa mi ngi seetaan émission bi lan moo tax ci wal fajiri wal fajiri man dama ko taamu mhm. sama kër la mhm. ndax depuis ma nekk bitim réew mhm. man moom rek laa doon seetaan ok sama télé la bala may wax dara sax dama waroon nuyu sax borom kër gi muy alaaji Sidi Lamine Niass waaw sa soppe waaw sama soppe ba sama xarit bi ma koy nuyu di mhm. ko gërëm mhm. di ko xam daal moom mi ngi dimbali askan wi daal mhm. waaw ndax li mu def ni rek dimbali doomu aadama yi la tout à fait société doomu aadama di ci jariñu di ci bëggal askan wi ñu ngi koy gërëm xaadim man du hasard tax ma toog loolu fii ci plateau yegg sil ndax it eh, teraanga teraanga rek koy fay mais te ñun ñun ak artistes yi ni ñu mel noonu la noonu la artistes yi ak ñun mel ak yéen. Ah, lenn mënul dagg bàyyi moroomam. ana ñu gunge xaadim foofu nañ yëkkati seen loxo yi ma gis leen. aw ma seen fay waaw xaadim wéetu ci parce que ah. ñële la àndal. franchement ñu gunge ko ñu ni ko yegsil du yow rek yaay dem. waaye ñun dañuy ànd ak yow gunge la. ndax it euh, nit ki bu la lebalee teraanga teraanga rek moo koy fay. numéro téléphone bi 77 575 05 62 wala nga woo ko ci 78 140 51 93 nañ ma joxal micro bi soxna As. madame Ñing laa bëgg ngeen tàccul ko bu baax a baax a baax. ana madame Ñing ak lan ngay yóbbante. maa leen di sant nag di leen gërëm di gërëm sama goro yi ak sama njëkkee ak ñi ma gunge ñëpp. di gërëm sama jëkkër yi bu baax sama jëkkër yi ma bëgg te gëmewuñ ma torop ak ñi ànd ak sama jëkkër ji ak sama goro yeeg sama njëkkee daal maa leen di sant di leen gërëm may ñaan ngeen tàccul ñu ko bu baax a baax a baax ah astu astu ana yan kàddu nga nu mën a yëkkatil ci émission yegsil yan kàddu nga nu mën a yëkkatil ci émission yegsil noo ko gisee waaw Papa maa ngi lay nuyu bu baax di la sant di la ziyaar bu baax a baax naan la émission yegsil tey émission boo xamante ni la émission àddina la Mm-hmm. émission bi dañ ko def pour dimbali askan wi. Mm-hmm. pour ku nekk jàppalante. Mm-hmm. papa yow li nga def kenn amul sa fay daal. ca kaw ca kanam rek ci lu baax. merci beaucoup jaajëf kontaan naa ci yow merci. Euh, Siteu na dem fële ba ci Siteu. Thiamas maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di nuyu waale. Uh-huh. di nuyu waale ñëpp yegg si li ma ko gisee Thiamas mooy dafa nekkoon émission bi nga xamante ne lu lu waroon a gaaw a teel ñëw la. dëgg neexul ak yegg si rek. dara fayul loolu. egsi daal kon egsi na. waaw egsi daal nañ ko ku ne xam na ne As Ndiaye egsi na dëgg neexul. aha merci beaucoup joxal ma ko ki dend ak yow. waaw euh, la charmante nan nga gisee exil gis naa la sànq ci seen bi waaye du tee nga yëkkati ci kàddu. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi nekk. waaw émission yegsil moom yéex naa yegsi daal dëgg neexul. te yegsi na ànd ak doole gu rëy. Mhm. dëgg neexul fii daal wàcc na daal man gis naa ne yegsil moom waa yegsi na daal. egsi te na ko ñëpp góolu ma ne la dina mel nii dëgg neexul dina mel ni soo ko roon ma camal ay yegsil yegsil rek joxalo micro bi kii ci kanam ñu tëjee rapidement aha salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal s'il vous plaît s'il aha maa ngi leen nuyu yéen ñi fi toog ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant mhm. ma di loo nuy yow di nuyu Pape Sidi Lamine Niass borom kër gi merci soo ma laajee nag ci yegg dinaa ci sa war a tontu. mais surtout ak sama góor gi nga invité tey mu bëgg trop. Mhm. muy aas ñi ngi. yegg nag émission bu yéex a yegg si la. waaye comme yegg si dañu leen wax dal leen ak jàmm ak salaam. Mhm. bëgg àddina ñëpp dinañ parce que Walfadjri moom la ñu am. fii ba fa ñu jëm Walfa la ñu am. allah waaw aas nag lay ñaanal yàlla fa nga bëgg a yegg yaa fa xam. yàlla wallu te teeru la fa nga bëgg a yegg. li kii wax rek sa noonu tey du nelaw. joxal ma kële galaay galaay waaye caamaas waaw lu Kumba Gawla di wax rek nee na kuy fëgg yegsil yegsil kon nag yegsil ji dina yàgg di yegsi <laughs> ndax aas mi dafa nekk koo xamante ne ne ñëpp ko bëgg barki maam Seera Fall mu nekk Baye Fall ànd ak gaa yëpp nag ñoom Cheikh Diop ñoom Ahmed Yaama gaa yëpp ku lim da juum mhm. waaye kontaan nañ ci yéen ñëpp yegsil nag ak sama tailleur bi nga xamante ne daf maa dig ñaaw nag. caabaas dana la ko jox. <laughs> daf maa dig ñaaw incha allah joxal micro bi kële. waa kii bi ji. waa baax ana yan kàddu ci mën a yëkkati waaw. rapidement. waaw ginnaaw ba sant yàlla di julli seen di sant. waa mbooloo mi yëpp ñi ànd ak as def déplacement def dérangement ñëw. Mm-hmm. as moom damay sawar di wax si moom ndax as sama booy la. Mm-hmm. as borom bu baax la waaw kenn gënu ko. Mm-hmm. te day tëgg lu neex. waaw moom moom nit ñi lu nekk mën nañ ko see daal yow ba as ne yegsi lañ ñu woo yow da ngay yegsi waaw yegsi nañ ñëpp yegsi nañ joxal ma ko ñaari borom caaya yooyu waaw ñoom gisee ñoom saroon fecc waaw caamaas ñu ngi leen nuyu ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaar waajur uh-huh. lii yegsi émission bi ba ma waree bañ ko waree def moo yàgg uh-huh. ñun nag waa Guédiawaye dañuy sant yàlla ndax doon am ay ñoom aas ay ñoom Serif ay ñoom Abdou Ngom am ñeneen ak ñeneen ah kii caabaan naa la affaire di ngay dégg ñu ta jamono yëpp géejawaay ñoo ko moom barki maam Cheikh Fall ñoo ko moom te xoolal benn affaire lii du dara asmi bi ñu ànd commencé ànd yàggul ko waxoon si anniversaire bi yal na yàlla la fa seetaane. amiin pusul ñu ko nële. merci beaucoup jërëjëf waa chers téléspectateurs de Walfadjri c'est comme ça que ça se passe euh, tous les 15 jours de chaque samedi euh, chaque samedi ñu invité kenn mu maîtriser nag li muy def macha allah. bàyyiwuñu nag kenn du askanu ngéwél rek la ñu toog muy haalpulaar muy séeréer muy yeneen askan yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal denc denculul kenn lenn ndax Walf du lenn fenn kenn waaye lépp fépp ñëpp la as ah, sa soxna wax na am na ñoo xam ni témoin jox nañ ko tëgg nga bokk na ci kàddu yoo xam ni it euh, moom mooy sa gis-gis ndax émission bi dafay xëcc jeex te it bala moo jeex dina am noo xam ne noonu ngay jeexale tey da nga ci bis bu rëy mhm. bala maa def dara tamit di ko jeexale mhm. damay santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi mhm. di sant sama ñaari waajur bu baax di sant sama yaay nday Maguette Gueye ku sonn ci man la te bañalu ma dara lu ma bëgg soo ba ngoon loolu bëgg ak sama yaay Maguette Thiam di gërëm tamit sama maam Penda mbay bu baax di gërëm sama mag jeewa di gërëm sama mag fëri ak ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu bàyyi lépp bàyyi seen soxla yëpp ñëw ànd ak man ku mel ne bàyyi naar Ahmed Yamar déjà jógee ci màggal gi rek yombul daw si ñëw daw ñëw yombul xam nga ah. loolu yombul mhm. mais yow tamit jar nga ko jàppale jeune yi nga xam ne ñoo ne kenn xamu leen bu baax waaw te kenn xamu leen parce que mhm. tamit as mënul na dund ba dee te kenn du ko xam kenn fii wone ma tamit ñu bëri xam ma mhm. xam te ne dama koy sant yàlla mm-hmm. di sant tamit sëñ Abdou Karim bu baax sama sëriñ kooku sama sëriñ la sama xarit la waaw di ko sant bu baax <laughs> waaw di tamit sama yaay sën seen mm-hmm. parce que moom lekkul dara baay ma uh-huh. lu mu am lu ne def may woo sën sën men taasu rek lay def moom rek lay def Sénégal moo fi dàqa taasu moo tax xam nga lu ma ko mm. na lu koy waajal parce nee naa ko géwal dafa am mm-hmm. ba géwal da am damel teeñ dafa am maay damel teeñ taasu waxtaan ak discours de bokkunu mhm. tey ma wax la lu neex ba mel ni dégge waaye tey ma wax la loo xam ne soo ko déggaatee as ngay dellusiwaat mhm. na ko bëkk rek dara man aram loo kumba caam bëgguma penda paate penda xar yàlla bopp coor mhm. sën mu rafet dëkk parcelle yaa bëgg seex dëgg la kooku déggal bàyyi fàllu te jox ko cëram rek da ngay dimbala yaay seen la nga defoon a gën yàlla noppi na mais tey as yow ku soxla woon sa numéro téléphone ci programme doo ma ko jox ah kay wax ko ma dégg 77 271 34 waxaat ko 271. 93 34. caa di gërëm tamit. ñi la jàppale ñi ma jàppale bu baax. waaw parce que émission bi jeex na ba pare. di gërëm sama gars yi xam ne ñoom laa àndal. Mhm. ñoom it nga xam ne dañoo bàyyi lépp topp sama ginnaaw du ma leen lim dama leen di mhm. ñaanal rek. Mhm. di gërëm laay si la. sama xarit bu baax. bi nga xamante lii ma sol nii moo ma ko jox. te ma dara. waaw bañaluma dara muy sama xarit di sama genn wàll xam nga mhm. di ma jàppale ci wet gune mhm. ba ma waajee émission bi la yëkkati lii jox ma ko ñëw ko ah. mu rafet ak maraakis yi ma sol lépp laay si la rakki pap si la tàccu leen ko waaw waaw mhm. di gërëm tamit bay di ba bay di ba di gërëm tamit sama yaay war a saar bu baax maman war a di gërëm moor cuun cuun dama yaay sin sagoor sama xarit baram itali moor cuun moor tama moom sama waay la di gërëm père Thier Diouf bàyyi Abdou Diouf ak Soxna May mhm. bàyyi ma kenn daal sama gars yi may ànd ñëpp maa leen di sant bu baax di leen gërëm merci waaw di gërëm tamit sama mag sëñ Cheikh sëñ Cheikh moom it dafa am fu mu dem rek mhm. mais waroon naa teew parce que sama bi mu arrêté tëgg mi daf ñoo jël teg ñu ci loxoom mhm. mu ñuy jàngal aar lii ñu mën yëpp ginnaaw yàlla moom la ci ndigalam la ñuy wéyee bi ñuy ñëw tamit ci ndigalam la ñuy wéyee mm-hmm. muy suñu mag di suñu xarit mm-hmm. muy sëñ Cheikh bàyyi ñu dara xam nga ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm ñëpp mais am na ku ni ma booy jeexal en général tama ngay jeexal waaw est-ce ngi fi mi ngi fi na wane boppam bala ngaa waa yegsil et euh, ça a été à la demande générale de beaucoup de Sénégalais surtout it askanu ngéwél moo tax door nañ tey mooy deuxième numéro bi na ko ñëpp xam euh, buñ ci jógee nag incha allah before minuit day am ak euh, Khadim Mbaye ñu koy woowee Padros leeru jamono di gërëm bu baax a baax toute la population de Guédiawaye tàccu leen seen bopp bu baax a baax a baax a baax kontaan ci yéen bu wér a wér di woona bi ñii nee nañ ma Tëngéej la war a jógee ñii neen ma biir Dakar Fass lay jógee am na sax ñu ni ma Pikine lañ koy tibbe waaye yéen ñi xam ne yéen a yor seen i sabar maîtriser li ngeen di def indi leen mbooloo mi ñu toog fii ci saal bi jàng mokkal ko wane ko ñi nga xam dañoo nekk ci régie bi ku ci mel ni Cheikh Tidiane xam ne it yombul waaye Cheikh na euh, Diop maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax di kontaan ci Ousin muy euh, Ousseynou Sall ak képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ba mu yemb bu baax a baax ci encore une fois astutine maa ngi bëgg ci yow ak soxna as bi muy madame Ñing ak euh, Penda gars yu bari miin ko ci site ak ay xaritam ak i jigéen ñaaleem Khadim Seck du ma tàyyi di la gërëm di kontaan ci yow bu baax a baax a baax yal na la yàlla bàyyi ak sa loxo bu mu fut bu mu fof bu mu am taab te na la bàyyi ak sa esprit ndax da ngaa dëddu Italie ñëw gën a liggéey Sénégal wane sa bopp en tout cas votre fidèle serviteur Thiamance reste toujours à votre disposition. Tama du daa tuuti coowam ma bari à samedi ay ci ñëwal.